ndekete du foofu te loolu gëm naa ni moo xaw a métti suñu waay ji suñu waay euh, <laughs> comment on appelle ça la l'APR ak waa hmm. Benno Bokk Yaakaar mais nañ xam ni que euh, malheureusement hmm. lu ñuy tere leur presse nationale def loolu la presse internationale yi def parce que pour man si la presse sénégalaise était totalement libre li France 24 yi def nii waa presse nationale ñoo ko waroon def donc c'est un bi ñu war a jàng te gëm naa ni ça va beaucoup plus motiver la presse nationale wax ni que xam ni que euh, parfois. mais ñoom information yi daal ça mais ñoom li ñuy li ñuy dénoncé mooy que benn euh, partisan euh, maanaam ñi nga xam ne waa France 24 dañuy jël parti bu baax a baax ci ni nga xam noonu la ñuy traité information yi. non man d' accord ma madame parce que d' accord parce que soo xoolee un peu les gens qui viennent actuellement à France 24 il y a beaucoup mm. plus de représentants du pouvoir. qui viennent pour défendre les idées que de l'opposition parce que xoolee Aïssata Tall Sall yàggul nii ñëwoon na France 24 euh, Pape Mawa ñëwoon na les ministres ils sont tous partis à France 24 donc pour man France 24 pour man ils sont pas partisans du tout ils ont juste traité l'information su nekkee nag le fait que dañu invité Ousmane Sonko. Hmm. mu def un million de vues en vingt quatre heures loolu moo leen mais loolu pour man c'est pas la faute de C'est pourtant, Sonko, il a fait que deux interviews sur France 24. OK, les deux interviews, chacun a fait plus de 1 million, 1 million de vues en un temps record, mais mm -hmm. l'autre, c'est pas la faute de France 24. Je de le dire comme ça. Alors, merci madame. Hein. Mm -hmm. à vous. Voilà. merci beaucoup maa ngi koy daal di jaajëfal bu baax a baax am na ku nekk ci ligne bi allo mais di leen continuer di liker di liker live bu baax a baax di ko partager ak tamit di ko aimer di jaajëfal ñu nekk sur na ku nekk ci ligne bi allo ah, daf mel ni kooku waa ah, dem na allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. Bijou ça va wala kooku Ndaya la. man la Ndaya bàyyi ngi ci jàmm bu baax. Euh, namu naa leen man la Mody. ah suñ tonton Mody. Euh, maa ngi leen di suivre seen liggéey rafet na quoi. dëgg la merci beaucoup. Euh, namu naa leen ñëwoon naa fa di leen ziar si quoi seen liggéey moom bu leen ko xeeb rek na trop quoi. dëgg la merci. mais maa ngi bëgg a dugg di intervenir que ni gis nga l' état du Sénégal. Mhm. Macky Sall communiqué là. il faut rester encore vigilant parce que euh, gis nga ñoom euh, diggante l' état euh, du Sénégal ak la France bu leen ci kenn nax comme bi ñu bëree. Mhm. ñu ngi dawal leneen ci suuf. li ma bëgg xamal mooy Ousmane Sonko nañ ko delloo njukkal. gis nga li ñu jot am nii. bis bu xeexul woon li ñu am ci reculade du Macky Sall bi duñ ko mës sa am. ok tout l'honneur revient au président Ousmane Sonko. allo. allo yi maa ngi lay dégg bu baax a baax. Euh, te li ma bëgg a xamal mooy. li euh, yonent bi waxoon sallallahu alayhi gis nga jour xare Badar. waaw. yonent bi dafa tiim euh, yéeféer yi ñu doon mille et quelque mu xam ne ñee ko ëpp doole xam nga lu mu wax suñu borom lu mu wax da ko ni de lim bu ndaw bi di limu trois cent treize saaba di seen euh, le nom de votre télévision là joyu suñ trois cent treize lim bi yonent bi dafa ne yàlla bis boo seetaanee lim bu ndaw bi bis buñ ko faat gaagalee suñu leen rayee mhm. dootoo amati kenn ku la jaamu ci kaw suuf gis nga Ousmane Sonko mii suñ ko seetaanee ba comploteurs yi eggale seen liggéey ba ñu fàdd ko ba jeexal ak moom mhm. du ñu amati ku ñu mën a euh, Sénégal génération yi nanu wuti nanu toog ba beneen ba beneen Ousmane Sonko judd ba màgg mais mais génération bi moom ñàkk nalu euh, qu'il soit reste euh, qu'il reste vigilant Ousmane Sonko moo ñu ci génnee su xeexul woon su xeexul woon naka du reculer ah bon lii ñuy def yëpp seen affaire génne kii bi yëpp ñoom ak la gis nga la France est derrière le Sénégal gis nga ñoom conseil de défense bi dañuy am ay euh, des instructeurs français yoo xam ne dañu daawoon nekk di siège dans le conseil de défense euh, di xam di di leen jox ay conseils réeroowuñu ak Macky Sall dama ni la li li Ousmane Sonko wax nañ ko bàyyi xel bu ñu divertir la France ak yeneen ñëpp a ci yam Macky Sall c'est euh, diversion la euh, li ñuy communiqué bi man gëwuma ci dara léeroowuñu ak lenn nanu nanu nanu concentre que tout le monde reste concentre très sur Ousmane Sonko euh, maa ngi maa ngi guddal nag quoi mais mais mais mais mm-hmm. gis nga Macky tey da leen di dóor ay perfusion yoo xam ni Euh, des somnifères gars yi nelaw discours am bi dara reculé wul ci dara. gis nga dafa génn ci bunt bi ci fenêtre bi lay duggaate de. ah mais na sa candidature. kon ah? mën naa ne amatul euh, jafe-jafe boo xam ne. ma ne na à sa à candidature bi. non mais non mais moom laa wax renoncer candidature bi. Euh, gis nga génn na ci bunt bi ba man man waxoon naa ne sama li ma sama borom wanoon barki yàlla man xam ngeen gëm leneen mais Macky Sall gis naa ko muy def campagne électorale. ah bon euh, gis nga Macky Sall euh, gis nga li ma waxoon ni Macky day samp candidature am. Mm-hmm. di ngeen gis deux mille vingt quatre Macky di wër réew mu di campagne. samp fi kenn demul fenn moo fi nekk ba léegi. te man su ma yàlla mayee tax temps yi dama xat mais j'aimerais bien ñëw foofu toog ñu développé ko quoi. voilà boo amee jot rek nga daal di ñëw euh, euh, euh, xam ni Ousmane Sonko li ma waxoon ci xare Badar yonent bi li mu waxoon suñu borom ni ko. sa lim bu ndaw bi soo ko seetaanee ba ñu faagaagal ko dootoo amati ku la jaamu ci kaw suuf moo tax yàlla may julli ci ndam Ousmane Sonko muy itam suñu sàgganee ba Macky Sall liquide ko. ñi ngi koy waaj a jël see xam. Macky bis bu defee loolu na ko leer ni euh, Ousmane Sonko en mm-hmm. prison waxuñu euh, ay réew mu tàkk mais euh, vingt quatre heures sur vingt quatre on parlera Sonko partout dans le monde Ousmane Sonko dëkk mais yow est ce que ak li la suñu boroom suñu boroom may est ce que gis nga voilà allo waaw ma ne ak li la suñu boroom may est ce que gis nga Ousmane Sonko ci ci ci ci ci prison yi wala ci prison bi euh, autant pour moi. xam nga xam nga fi mu toll nii. Mhm. Euh, li ñu xam yëpp suñ ko waxee perturbé dañuy perturbé mais mais mais mais mais dama nekk ci fu xat nii mais je vous promets d'ici peu ma ñëw foofu ñu toog dañ cee waxtaan gis nga. gis nga euh, gis lenn rek laa leen bëgg wax ni Macky discours am bii di euh, euh, ngeen ko gis mu wàcc ci mbedd bi de ma Macky demul fenn de gis nga dafa génn ci palanteer bi mi ngi duggaat ci dafa génn ci bunt bi ci palanteer bi moom lay duggaat te toogaat ci fauteuil bi. Euh, xoolal sous un autre personnage Macky demul fenn le système est toujours là. Okay. Il faudra que l'on soit concentré autour de Ousmane Sonko xeex bi xeex bi xeex bi Ousmane Sonko taxaw xeex koog moom. Mhm. Euh, vingt mars ak non euh, mois de mars ak mois de juin moo may moo ñu may reculade bi Macky Macky Sall da doon dem. Mhm. ci soixante douze heures yi am na ay faits déterminants yu tax mu reculer yooyu yëpp ñu bàyyil ba ñu am jot ñu waxtaan. léegi dinaa la xaar semaine prochaine incha allah tonton Modou ñu daal di mais euh, waaye naa leen peut euh, dinaa sa numéro sax yow dinaa ko laaj bijou mu jox ma ko ñu dana toog waxtaan quoi ñu dana yeggale waxtaan bi. waaw euh, namm naa la trop merci beaucoup. incha allah merci beaucoup dinañ ko daal am xam naa semaine bii nii daal di sekk ak moom waxtaan ba tey mën ngeen dugg ci chaîne bi am na benn stream boo xam ne dagg nañ ko ngeen daal